foofu laa jëm non mënoo ni ku jàngul aar doo dugg ci secteur bi loolu mënul nekk parce que même États-Unis ñi fa nekk di bind ñi fa nekk ci yeneen métier jàng ko gis nañ fa ñoo xamante ni jànguñu ko te yàlla may na leen ci dara yàlla mooy maye am na tey jii ñoo xamante ni defuñu école jànguñu ko mais niñ ciy tëddee ki def école bi tëddeewu ci yàlla moom moo bind tey yemalewul te loolu il faut ñu koy nangu il faut ñu koy nangu. benen bi moy tey jii bu fekkee da nga ni secteur bi ñi ko jàng rek ñoo def yaa ngi tëj secteur bi yaa ngi koy yàq yaa koy yàq donc dañ ko wara ubi. mais il faut quand même ñu régler le statut de l'artiste après bu ñu ko régler ba pare théâtre sénégalais je dis tout le temps dañ ko wara a subventionné <laughs> dañ ko dañ ko dañ ko subventionné <laughs> théâtre dañ ko wara a subventionné tu vois compagnie privée yi ñu jàppale leen les festivals yi nga xamanteni ne ñoo nekk Sénégal dañ leen war a parce que simplement dafa am loo xamante dafa am solo mooy ñu ngi personnes te ñooñu leen dajalee am na lu war sa ak donc subvention am ku la épaulé poser problème donc il faut aussi nous permettre la divulgation de nos œuvres Madame la promotion aussi la diffusion de nos œuvres Nous permettre ay compagnies yu nekk Sénégal dem bitim Rew di fa jouer mais nous permettre aussi ay compagnies di jóge bitim de di au Sénégal fii beneen bi mooy nationale des arts dañ ko war a gën a yaatal dañ ko war a gën accessible niveau bac la et c'est pas évident il faut ñu gën ko yaatal beneen bi tamit moy il faut ñuy permettre ay formateurs de l'extérieur ñu ñëw régulièrement di ñu former suñu xalé. je pense que loolu du ñak buñ ko défé defal ñu ay théâtre terre de verdure ak yooyu dina yokk incha allah.